société nationale d'électricité bu Sénégal ngir defar ligne haute tension buy jógee ci Casamance dem ci réseau électrique national boobule haute tension fu mu jaara daal dina impacter producteurs agricoles yi nekk ci jaañoo ci loolu ñoom ñuy fësal seen i naqar ci indemnité bu Sénélec proposé. mooy dama bokk ci ñi ñi eh, ci impacté yi. waaw ci léegi ci surface bi c'est 14 000 mètres ci tool bi anacardier te sang boobu dafa am ñetti téeméeri arbre ak juróom juróom juróom juróom fukk arbre moo fa nekk ñoom ñu ne cent quarante lañ ñu war a fay du ñu fay des cent dix pieds yi ma ne ko loolu mun ma ko def parce que man sama yaakaar bi ci kaddu bi la nekk soo leen defee loolu da ngeen mën a sonal benn fay ma dix mille francs mais c'est pas en pépinière loolu mënul nekk ngeen ñëw ci tool jàmbur fixé seen prix loolu kenn du ko def ñu ne suuf bi quatorze mètres carrés duñ ma jox benn dërëm parce que loolu état moo ko moom loolu bu leen jox dara mais les arbres moom fay leen lu leen neex état loolu la leen wax ñoom producteurs yi jàpp nii ni Senelec da leen di jaay doole ci lu ñu moom. kaju bi mooy suñu yaakaar parce que tey producteurs yi fii ñu fi nekk yëpp dañuy jël kaju bi di suñu jaayee suñu kaju si la ñuy jëndee suñu dundi suñu ceeb loo xamante mais su fekkee dañuy ñëw dañuy jaay doole ñu ñëw ñu dugg si tool yi. parce que lan la dañuy ñëw gendarmerie ñëw fii daje fii ñi puus mu di jël suñu tool yi di ñu jaay doole loolu du yoon. producteurs yi di woo nguur gi jàppale leen si injustice bu ñu nekk di dund te xamal ni ñoom jàmm rek la ñu soxla. te ñun Casamance jàmm rek la ñu soxla parce que soo xoolee 30 ans ñun amuñoon kii kon tey suñu demee ba am jàmm kon waruñu jël tamit ñeneen ñi ñëw di ñu jaayaat doole. gars yi nu ñu dédommagé gars yi baaxul parce que ñëpp ñu ngi yor seen reçu kon ñun interpellé eh, loolu la ñuy interpellé état mi jàppale ñu ñun producteurs yi. gannaaw seen naxar producteurs yi nekk si jaañoo seen i doléance nekk Senelec arrêté ngum liggéey bi ñëpp daal di toog waxtaan ñu xoolaat bu baax indemnité bu ñu leen proposé.